Reug Reug mooy borom dëkk bi Reug Reug topp. xeex xeex bëre ñu ne xeex ñu ne bëre. Sathiès nii la koy muy Sathiès voilà da koy xam. gu ni mel la supporteru Reug Reug ak Sathiès seetaan see làmb ji. arène nationale bu tàng jër ay soppe yu yëngu lool lépp a matalew na ni combat bu mag. ab Sathiès bu bëri pas-pas lool ànd ak ngëm-ngëm jànnoo ak Reug Reug bu xumb lool. ngëm-ngëm taxawaay bu mat sëkk jaar rek ci xar fa xuufa ñaari mbër yi bàyyiwuñu dara ñu lewaatoo tuuti joxalantey kurpeñ Reug Reug daal di jëli adversaire am yaakaar sax ni am na ndam waaye arbitre bi daal di leen a woowaat ndax jàpp ne jël amul ci ginnaaw loolu Reug Reug daal di ko jëliwaat. buub ba rafet lool mu daal di rek yeggali Sa ca suufa ca kaw gradin ya supporter yi Sa Thiès mer ba futt ndax action bu njëkk ba tàmbali xeex ba estiéjuk arène nationale ñu daal di leen a wekkiwaata ndax kat appui am na wala déet li ci leer mooy mooy Reug Reug la jox ndam li mu ñi bég drapeau ba ci pàccam moom Sa Thiès li ko ñeel ginnaaw mer ba futt ba léegi sax yoon daanaka may na ko mu daal di teg ab recours ngir sax ñu dindi victoire bi